ak euh, waa agence nationale de énergie renouvelable ak waa Fond Roche pour ñu visiter li nga xamante mooy liggéey lampadaire solaire yi wante it def réception provisoire ci ñetti téeméeri lamp ak ñett ci par rapport ak cinq cent yi nga xamante ni war nañ ko am kon li réception provisoire la liggéey baa ngi continuer pour ñett pour juróomi téeméeri mat ñi ko def nag ci Ahmadou Bamba avenue mm, Mame Mor Diarra avenue Mame Cheikh Anta Borom Darou Salam avenue Mame Cheikh Ibrahima Fall avenue Sëñ Bassirou Mbacké donc yooyu lañ réceptionné guñ kon mu des yeneen yi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey donte pare na sax ay yi pareegul yëpp xam naa deuxième réception bi incha allah rabbi dafay nekk une réception définitive donc ñu mën a jëlaale yëpp li ci am solo nag mooy leer na leeraay goo xam ne population yi seen bopp ñoom ñoo apprécier seen bopp ci qualité liggéey bi foofu it ñu ngi ci sargal président de la république ci gis-gis bu rafet yu am ba teg projet boo xamante ni cinquante mille lampadaires la coûté cinquante sept milliards de francs CFA ñu yara ko ci commune Sénégal yu bari li muy jur rek mooy loolu dana teggi facture bu cher bi nga xam ne état daana ko fayal communes yi wante it dëkk bu mel ne Mbàkke nga xam ñetti junniy waxtu lay am ci naaj ci at mi wax dëgg yàlla waruñu utiliser beneen énergie lu dul énergie solaire ndax doy na fi sëkk kon lii euh, bu fekkente ni jot nañ ko ñun Mbàkke juróomi téeméer lampe rek installé ko ci quartier yi loolu askan wi dëgg yàlla bëgg nañ ci ñu ci jaajëfal tamit le directeur général bu ANER ndax wax dëgg yàlla liggéey na ko liggéey mu rafet xanaa rek di di soññaat suñu njiitu réew ngir mu jublu ci phase 2 bi ndax bu ko defee rek dana askan gën a mën a jariñu ndax phase 1 bi déjà am na succès kon nag phase 2 bu ñëwee day gën a baax day gën a yaatu pour Sénégal projet bi it boo seetloo bi muy dikk def fekk commune bi am un grand projet bu jëm ci wàllu éclairage Senelec dugal ci loxoom defal ñu lu mat onze postes def ci def ci kilomètres bëree bare bare bare bare pour ñu mën a éclairer quartier périphérie mu dikkee di état euh, président it projet bi mu indi mu cinquante mille lampadaires ak si ñëwaat ci juróomi téeméer ñu teg ko ci artères mag yi wante it mairie bi it jëlaat alal ju bëri jëndewaat ko ay console ak ay làmp ak ay extension dugal ko ci yeneen quartier pour que quartier yi ni artères yi leere it quartier yi mën koo leere ndax loolu bu amee rek sécurité dana am moo tax kon euh, mairie moom mi continue di liggéey en dynamique ci projection pour Mbacké ville éclairée mm. kooku nag wala ci lañ nekk daal xam Euh, dynamique bi ñu inscrire du dynamique politique mais dynamique wu liggéey la parce que Mbacké dafa am retard yu doy waar yoo xam lépp daanaka politique rek moo ko tardeel te addina bi dañoo toll foo xamante ni dañoo war a dépasser coow ak wax liggéey def lu concret loolu la Sénégal soxla loolu la commune bi soxla moo tax ñun mosuñu ñàkk nekk à l'aise parce que li ñu planifié ñii xar suñu tànk tubéy lii ci état lañ koy jëlee. lii ci commune bi moo koy amal boppam lii ci partenaires yi pour que dëkk bi mën a avancer défi yi nag moo bari mais nañu liggéey rek buñ liggéeyee ci kanam tuuti wax dëgg yàlla dañ gis ne lu bari dana soppeeku.